bisimilah bisimilah asalaamualeykum wa rahmatullah waa Pikine maa ngi leen di nuyu waa Pikine maa ngi leen di nuyu di nuyu bu baax waa réewum Ngor bi Lamine Gueye jiite maa ngi leen di nuyu di nuyu Mapenda Faye di nuyu le docteur Cheikh Dieng di nuyu ki nga xamante ne moom mooy Ibra Gueye bi nga xamante ne moom it candidat la woon à la ville de Pikine mais di nuyu responsable yi nga xamante ne ay responsable national lañ jógee Dakar teew si fi di nuyu le chargé des mouvements des structures Saliou Dieng moo ngi fi jóge ci parti démocratique sénégalais mais di nuyu le responsable de l'UJTL Franck David Diatta mu taxaw sama wet di suñu doom di xale bu yaru di leen nuyu di leen sagal di leen sagoo di leen wax ñun parti démocratique sénégalais ay nit yu tàmm combat ay nit yu miin combat ay nit yu miin terrain ay nit yu mën a xeex lañ ay nit lañ yoo xamante ne ragaluñu lëndëm saa su ne mën nañoo xeex yi ñun à tout rek ñun mën nañoo xeex suñu xeex ah jamono ju ne saa yu neexee Timbo suñu ko engagé ñun doomu Pikine gënuñoo wex ñun ñun amul benn doomu Pikine fii buy taxaw man maa ngi juddoo fii ci ginnaaw kër gi kër Bira Gueye Cheikh Thiam amul benn doomu Pikine buy wax ne fii yaa taxaw na yaa ëpp fit maam Diarra Fam n'existe pas kon nañu dal. hélas hélas. nañu dal nañu dal ñun dañu ne nañu dal nous on parle avec Ablaye Timbo ñun des problèmes andi wuñu fi suñu problème mooy sàcc gi nga xamante ne sàcc ko mu leer deux fois Lamine Gueye mu ne sàcc nañ ko 900 voix. daf ko gagné Cheikh Dieng gagné 350 voix tey gagné ñaari yoon muy lambu Balla ci benn tàkkusaan ñaari jël ñu door Timbo door ko dooraat ko benn complot juga ca kaw ki nga xamante ne mooy ministre de di Antoine Diome orchestré ko ak ki nga xamante mooy Macky mu nga xamante sàcc rek lay liggéey ci réew mi loolu ngeen war a xeex du guerre de positionnement affaire bi bataille la ñun contre le gouvernement pas ñun dans c'est ça le problème donc jàpp naa ne nañu fexe ba nga xamante ne nañu fexe ba nga xamante ne ah, ba nga xamante ne sunu combat fi mu war a egg dina fa egg dañu bàyyi problème crypto personnel man maa ne docteur Cheikh Dieng ñun ñoo defar PV moo gagné Ablaye Timbo Ablaye Timbo sàcc la sàcc la bu mag a mag mag ak jarbaatam Macky Sall nga ndam maamu sàcc la seen càmmeñ Antoine Diome ponkalu maamu sàcc la les voleurs de la République rendez la mairie de Pikine merci beaucoup